Heavy Mess.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 kay ñaari waxambaane yooyu nag nee ñu ñoom ñaar ñëpp ay nappkat lañu mbir mi mu ngi xew booru 19 heures 40 Béa Ndiaye am 16 ans dal di Jamate M Diouf mi am ci dënd bi ak ci loxo càmmoñ gi ba mu jaare fa ñàkk bakkanam te nag nee ñu seen jàppante googu lu ko indi du lenn lu dul tubay tubaab di ko wax moom daal pantalon moo indi seen jàppante googu bi amee nag ci lañu informé élément commissariat bu quatrième arrondissement bu Médina bi ñu ci béréb bi fekk nañu famille ki ñu jam dal di koy évacuer bu Gueule ci la police yi dal di jubali ca centre de santé boobu waaye malheureusement nag bi ñu yegsee ci la leen médecin bi ne Emu Diouf fi indi woon te ñu jam ko mujj na ñàkk bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñaari nappkat yooyu na nee ñu ñoo bokkoon benn néeg bu ñu luwee Pia Ndiaye bi mu defee njombem lu rëy loolu dafa daw làqatu ji ca yoof ci boppam moo ko boole papam ne ko kirtim dal di jël jébbal yoon seetal ma lii rek pantalon tax ñu reyante pantalon tax ñu rey moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la ndaw si nag li mu def jéggi na dayoo ndax moom daal dafa jàpp ne jëkkëram day doxaan di cuuc fii di cuuc fee tax mu yàq ëmb cinq mois bi mu ëmboon nee na moom du fi toog di ëmbal bay jural góor guy doxaan mbir moomu mu ngi xewee ca jëppal ajaw di ab commerçant moo déposé plainte contre jabaram ca police bu jëppal ndax nee woo jabar gi dafa yàq ëmb cinq mois ñoom ñaar ñooñu nag depuis lañu la ñu marié ba am nañu ab doom bu am ñetti at waaye bi ndaw si jëlaatee ëmb jëkkër ji ne jabaram jooju mi ngi doon suivre ay traitement am correctement di dem ay rendez-vous ci ëmbam boobu waaye ne bés rek la wàcc dal di koy fekk muy jàmbat mettit bu metti naka noonu ci la ko jëlee pour yóbbu ko hôpital Abass Ndao waaye à sa grande ci yoon bi ndaw si ne ko dafa naan ab médicament ngir yàq ëmbam musiba naaru lay teg ci ne ko moom daal du fi toog di jural doom góor guy doxaan waay waay way waay waay jëkkër jay wax dee ne bi mu xoolee téléphone jabar ji gis na ci ay waxtaan yoo xam ne mu ko seqoon ak benn xaritam ñoom ñaar ci seen bopp ñuy prémédité ngir yàq ëmb bi ne ci vocal yooyu mu déglu sax xarit bi ci boppam moo digal jabar ji médicament bi mu jënd ngir war a yàq ëmb ba ndaw si nag moom nee na lu tax mu def lu ni mel jëkkër ji dafa am ab appartement boo xam ne daf ko luwe di fo iri yeneen jigéen comme nag yamul ci moom moom ci boppam nag du fi toog di ëmb ak a jural góor goo xam ne day doxaan <laughs> ma ne ko lii nag de mooy tës dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaye nag ndaw si moom ate ah! bii jafe na de moo tax góor ñi da ngeen a war a yem ci benn jabar waaye am sa jabar di cuuc fii di cuuc fee ah! góor yi doxaan daal war nañ leen génne réew mi am jabar di doxaan ku koy def war nañ laa génne réew mi mu doonoon seen xibaaru bës dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru bës